football naa ba 92 ou 93 laa bàyyi donc j'ai eu à être le capitaine du mondial et te lu bëri lu ma xam ci football yàlla moom moo tax mu xam ko te man moo Modou Diagne Mbengue dañu amoon ay relation en dehors même du terrain parce que doon na wax defal nii bul def na le donc mu nekk koo xam ne nit ku baax la dama jaxasoo ak sa famille parce que yàlla def na am na ñaari doomam yoo xam ne jàngal naa leen muy Ndiku Mbengue ak euh, Baye Demba suma élève la ñu woon CM Bargny ñu koy ñaanal rek moy yalla xara ko aljana fa mu euh fa mu nek actuellement ni gënal ko fofu mu fu mu joggé ni nit ku baaxoon la nit ku nit ku amone engagement nit ku bëgg ku am lu sa ñoon ñepp bax man wax dëgg yàlla eh, daan na ma xelal daan na wax defal ni daan na wax bu def ni daan na ma accompagner sama initiative ko xamni ki wax xam aussi Nous nous daan def dans temps bu ma ci fekkee cadre la man damay ak bopp bu jox ma des conseils avisés il na a yàlla il y a le xara c'est une fierté je voudrais remercier ceux qui ont eu l'initiative d'organiser ce bel hommage où on retrouve l'ensemble des des légendes comme on les appelle de Bani, qui s'amusent et qui euh, pratiquent un sport qu'il a toujours aimé qui est donc la pratique du football donc a na yàlla dolli jàmm bi yàlla nañ ko yàgg defal ñi nga xam ne ñëpp ñu doon dimbali nit ñi seen wàllu éducation parce que football nawetaan en même temps éducation la woon pour ñun yal na yàlla dolli jàmm. kontaan nañ trop ci initiative bi waa Bargny def rawatina les légendes de Bargny donc ça prouve que ni am nañ reconnaissance ça prouve que am nañ gratitude ça veut dire que voilà nit dam ñu fàttaliku ko sant yàlla tey mënoon na dam ñu fàtte ko mais def ñu lool. donc li ñu def tey rëy na ci ñun rëy nga xamante ne ni amuñu xamuñu tolluwaay bi fi mu yem ci ñun parce que bu dul dara nit wàññeeku na àdduna ñu fàtte ko nit jóge na fi def nu fàtte ko mais ça prouve que ne fàttewuñu ko donc li mu defal bañ yëpp tey lii teraanga la ñu jagleel ko ko donc ñun ñu ko jagleel njabootam lañ ko jagleel.

jiital ci Ibrahima Seck moom mi initiateur ak ñëpp ñi nga xamante ne topp nañ ci ginaaw en tout cas am mbégte la ci ñun franchement ci bés bi ni ñu jagleel ko suñu waaju donc lu ñu mën a def lu dul sant yàlla bu baax baax baax baax di leen ñaanal yàlla ñi initié bés bi di leen remercier ci initiative bi di leen ñaanal yàlla di aussi ñaanal aussi tamit sama xarit papa yi fi toog ñëw tey jëmmal bés bi tey daanaka njabootam bépp ngi fi ay xaritam ay doomam ay sëtam ay soxnaam ñëpp ñu ngi fi donc tey lu mel ni ñu jàngal ko di ko fàttali donc ñun ñun ñu dudul am ci contentement bu rëy franchement c'est un honneur pour ñun assister genre événement yu mel nii donc di ko sante yàlla ci kaw li ñu defal en tout cas kontaan nañ famille bi yëpp kontaan nañu ay xaritam yëpp kontaan nañu njabootam bi yëpp kontaan nañu. kontaan naa si bés bi yàlla yàlla fay leen mooy lebal lebal xale. xalé mo jottal lebal ko ci sëg bi amul morom ñu koy sant ci ko trop kii waral bés bi nak sa mon ami intime ñu fondo ñu defandoo lepp ak booy bi tok mooy Modou bi ci social la woon ku daan dimbalé te yalla tax ku daan jappalé ci ASC dal gi BMS poosam daaw ko fekke problème transport gars sax mo leen di daan financer billahi billahi ku social la ku baax la woon ku ñemewoon njaboot comme ni ma la ko expliqué otaam toujours day yëpp rek ku mu romb yëpp ku mu romb yëpp ba keroog jël benn femme euh, côté côté ngudda yóbbu ko ba bataan dëkk di jinn la bi ma wàccee ubbi kàpp bi ndaw si dem gisatu ko. ah dañuy sant yàlla bu baax si sàmm sanga yi Seydina papa nekkoon na ku baax. nekkoon kilifa bu baax bu bëggoon njaboot kilifa bu moo toppatoo njaboot ñu ngi sant di ñaanal yàlla fi mu dem gën a nga fi mu jógee parce que uufoon na njabootam téye woon na njabootam suturaaloon na njabootam macha allah macha allah Mbengue Mbour sant tamit ñi def lii waa zone cinq di leen ñaanal di leen ñaanal yàlla ba yàlla jàppale leen li ñu def nii macha allah dañ si kontaan boole xol bu tooy am nañ ci yëg-yëg bu baax a baax a baax a baax a baax a baax si Assane Seck noo tudd waa Assane Seck waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla di ay xaritam yi yëpp ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla ñoom ñëpp ñëw nañ teew waaw ñu leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan te wéral leen yàlla yàlla barkeel leen ñi fi des njaboot ñu fi bàyyi tamit yal na yàlla barkeel leen macha allah sant naa samay rakk sant samay papa sant samay tànt ak samay doomu nday yi ma àndal ñu toog sama tantaa ngi ñu toog ñoom ñëpp jàpp nañ si bés bi kon macha allah yal na yàlla gën a dëgëral gën a jàppale njaboot ji gën jàppale waa zone cinq ñi di organiser affaire bi yàlla yokk tamit seen xéewal boo affaire yi gën a réussir incha allah macha allah def nañ def nañ xadaratul wàcc nañ kaami loolu yëpp def nañu kon nag loolu yëpp sant yàlla ñi mboolum jullit ñi ñu demandoo yëpp yal na yàlla yërëm leen te jéggal leen ñi fi deset ndam yal na yàlla guddal seen fan te barkeel leen sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax sant yàlla rek li lépp daal si sant yàlla bu la yàlla may kilifa gu mel nii ñu toog ba di ko sargal yow njabootam nga nekkoon xale dem ba ñi nga nekkaloon xale ñu dem ba di ko sargal nii kon dañuy sant yàlla rek sant rek lépp rek si sant yàlla la bokk ndax pam mu jaañ mbéy nga mënuñu wax si moom lu kii daal lu ñaaw lu rafet rek la ko yàlla séddoon mu doon ko def si digga bar ñi ba bar ñi yëpp yëg yëgam yëg ni mu meloon si doomu aadama yi kon nag yàlla bu la mayee kilifa gu mel noonu yow da nga def la du sant yàlla bu baax a baax a baax lépp daal santa la rek. mention spéciale pour Ibrahima Seck waaw parce que xale la macha allah waaye mu ngi def si Bargny loo xamante ne kilifa nee na te defu ko macha allah kon la ñuy ñaan Ibrahima yàlla jàppale ka suturaal ko. noonu démb bi mu ñëwee kër mën naa ko yow mën nga nekk meeru Bargny waaw kon yàlla na ko yàlla defal parce que ba mu dalee def si Bargny yàgg na waaw ba mu gën a def si bàjj boobu mu ngi nekk xale sama rakk ju seede naka nee na ba ñu nekk université daan jënd ay gaz ak mu ne di leen ko defal te boo mu ngi nekk xale si boursom la daan jël di leen ko jëndalee ay gaz pour ñu ñu tàngalee defar ndékki kon macha allah Seck yal na yàlla dooleel ko yal na yàlla kàttanal ko ba lu mu man ren yal na mën déwén la déwén lu ko yàlla yokk suturaam bu gën a yaatal li muy def nii si daraja njool mi wax na ni allah kontaan nañ bu baax moom Modou Diagne moom li ñu wax moom def naa fi la ñu fanaan quoi parce que Modou Diagne moom mooy nekk suñu entraîneur moom si terrain bi moo Diagne ubbi na école de football am nekk si école de football bi euh, man ñëw si école de football bi

amuñu lu ñaan ko yalla ñun dal ñu tay ñaanal rek ñu tay ñaanal yalla xara ko àjjana man ko yalla xara àjjana di leen gërëm ci li ngeen mo Modiane beñ ndax Modiane beñ bi mu ne bar ñi jëpp lim fi def ku ne gis na ko defar na xalé yi defar na mag ñi defar na ma sha allah yàlla ko yalla yërëm li tamit ñu entamé di ka def Ibrahima sek moko sabab te lii gisuñu si dara lu jël ndam man bi ñu ñëwee ba Njaañ ba jàng kaamil bi bi ñu jàngee kaamil bi ba pare si lañ doo des kër ga da ngay dem da ngay si ñun da ñëw si ñun si ànd ak ñoom dem kër ga ñu réunion foofu ba pare ñu réunion ba pare dañ lay fal saag ma ne leen man lu ngeen nekk rek maa ngi si mais borom bés bi jar na lépp jar na lépp jar na lépp dëgg yàlla. gëj naa football mais boo gisee ma def effort tey jii pour may bés bi ampleur moo tax ma sol ñëw fi football fii ànd ak xale yi xale yu neex a àndal xale yu baax xale yu jub xale yu rafet njort moo tax man ma ñëw fii ci ñoom defar rek moo leen tax a jóg nag képp kuy jàppale na leen jàppale képp ku ne si bi di autorité na jàppale xale yi parce que defar rek moo leen tax a jóg man gëj naa football yàgg na mais bi ñu moo ayal lii laa ne damay football yi ànd sama waa ji ñoom Mara tout le monde ñëpp ñëw nañu assister ak le grand le capitaine de l'ASC Mandiol le grand capitaine le grand grand de l'ASC Mandiol Modou Gueye Diop waaw ku baaxati ku baax a aussi ku baax a baax a baax a dëgg yàlla ñoom ñëpp ànd bi rafet na rafet na moo jaan luñ ko luñ ci wax rek xeeb nañu ko luñ ci nañu ko